Thank you. mbokk internet li ma metti ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen remercier encore une topp bi ngeen di topp li ma metti lii soo leen ko gisee mooy benn trophée boo xam ne youtube daf am na ko 100000 abonnés yooyu nag am nañ ko grâce à yéen parce que yéen yéenay topp li ma metti point com mën nañoo nag dépassé foofu am 1 million d' abonnés daal di am trophée bi nga xam ne moom mooy trophée en or loolu nag suñ ko bëggee am da di continuer di topp li ma metti point com di abonné wu ci chaîne yi foo leen mënti remercier nag bu baax a baax a baax ci topp bi ngeen topp li ma metti di leen wax ngeen continuer topp lima ma metti point com ngir ñu mën a atteindre suñu objectif nekk un million d'abonnés daal di am trophée bi nga xam ne mooy trophée en or